mbokk yi dal leen ak jàmm seen chaîne bi di Tivaouane 24 la chaîne religieuse mbokk yi ñoo ngi leen di ñaan ngeen abonné ci seen chaîne bi di Tivaouane 24 la chaîne religieuse di leen bës cloche notification yi ngir ngeen man di jot yu am solo yi bàyyi ko ci biir chaîne bi di Tivaouane 24 mbokk yi jërë ngeen jëf. mbokk assalamu asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuh pap Omar Kéré ak seen chaîne bi di Tivaouane 24 TV mbokk yi buñ leen laan Abdou Aziz Aly Ndiaye dafa sopp Tivaouane dafa bëgg xadara maam Cheikh Sidil Hadji Malick Sy dafay sonn ci xadara maam Cheikh Sidil Hadji Malick Sy ñenn ñi dañ naan déedéet ñenn ñi naan non non financièrement gisee waaye déedéet lépp loo xamante ni dina ji xewle na ko xadara bi xewle ko képp kuy jullit xewle ko waaye rawatina fii ci Tiwaawan di xajara maam Cheikh Seydil Hadj Malick Sy Tiwaawan bu Serigne Abdoul Aziz Al Amine turandoowam xewle ko mbokk yi ma nga ca mbokk yi ba burdu bi tàmbalee ba léegi maa nga ca burdu ba chaque jour waaye amul bis bu may toog ca burdu ba te du ma seen Abdoul Aziz ca mbooloo ma naan mawlaaya salli wa sallim daiman abadan ala habibika al xayri xalqi kullihimi mbokk yi la preuve est là déglu للخلق كلهم